dal leen ak jàmm li askan wi doon séentu di tabaski daanaka yegsi na moom la yéenekaay yu bari xëyee tey Walf Quotidien xëy taxaw ci marché-pied bi di ñu xamal ne bile tabaski dem beek dikk bi jax na lool yemook mbas mi di coronavirus ne xas ci réew mi Walf Quotidien di ñu fàttali ne yàggul dara kilifa yi jël nañu matuwaay yi doon sàkku ci askan wi ngir ñu faratal masque yi Walf Quotidien ne yooyu le masque ñu bari ci askan wi jëfewuñ ko bari na ci clients yi faral di jël ak chauffeur si saay ñu demee ba ci marché-pied bi daal di fab seen masque sànni dugg seen woto dem yéenekaay bi réew mi Quotidien xëy dem ci jaaykatu xar yéene cabinet borom kër yi ñu ngi ci daj lu metti ndax njëg mu cher lool ci yooyu la xar waaye xar yi ak ci jamono ji ci tabaski bi di xaru coggal yi maanaam foofee la borom kër yu bari jublu ndax coggal gi seen njëg mi taxu koo demee noonu réew mi quotidien ci tabaski ren ji bari na lool ay borom kër yu dul am xar ndax koom gu demeewul noonu l'évidence ne loolee tax dimbalante bi fës na lool ci tabaski bi rawatina ca département bu Nioro kii di Moustapha Bitèye di responsable ci mouvance présidentielle bi taxawu na askan wa yeewoo ca département bu Nioro joxe fa lu demee ni ay xar sobleeg pompiteer Moustapha Bitèye la mu joxe ca département bu ñoro boo ko xaymaa ci koppar toll na ci fanweeri million l'évidence ne ca Saalum googule am na ca ñoo xamante ne mënuñoo tabaske seen kër ndax def leen a fekk ndungu siin maanaam ña fa caabi féete ginnaaw ca kaso ya ne ca Kaolack kii di Abdoulaye Xuma daal dina yeggee ndimbalam ca camp bu Koutal ak yeneen i kaso yu ne ca Kaolack ngir gunge leen ci tabaski bi jox leen dund lu demee ni ay xar sobleek pompiteer doon lu administration pénitentiaire bu Kaolack jota rafetlu ci ndimbal gi tukkee ci Abdoulaye Xuma yéene kaabi di Sud Quotidien réewum Sénégal a ngoog réew ñaari tabaski nar fee am yéen kaab talaata tey ji am nañu fas yéene julli tabaski ña des fas yéene amal seen tabaski ëllëg ak jàmm ci àllarba ji yéen kaab na a dalal askan wi ci jullib tabaski fu demee ni grande mosquée bu Dakar du ubbi ay buntoom ak feneen ak feneen lépp ngir moytu jullib mbooloo mi ñu ne mun naa lawal coronavirus yéen kaab di enquête xëy di ñu enquêtal ci taxawaayu xalif général des Tidianes yéen kaab ne taarix jox na ko dégg moom Serigne Babacar Sy Mansour fa mu tegoon tànkam teggiwu ko taxawaay ga mu amoon ci xeexum mbas mi di coronavirus ba tey ma ca yéene cabinet yàgg na wax ak askan wi moom Serigne Babacar Sy Mansour xamal lenn li wàcc ci askan wi weesu na feebar ne bala la enquête ne te moo ne de xalif général des Tidiane say su ne mu ngi doon soññu askan wi ngir ñu gën a fàggu waaye itamit doon xamal nguur gi ngir mu wax dëgg askan wi wax leen li xew ci bile feebar ci biir yéene cabinet enquête njabootu omarienne ne duñu amal jullib mbooloo ci tabaski ren ji yéene ñu bari ci askan ci conseil constitutionnel mi ñu ne ma nga de cabinet googule conseil constitutionnel ñetti fan ci weeru janvier 2021 gi weesu kenn ca membre ya jot naa génn àddina am ñaar nañ leen ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin 2015 waaye seen mandat jeex na ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin 2021 te booba léegi kenn mënagu leen fa wutu Walf Quotidien dañu xibaar ne am na fa ñetti membre yu bokkatul ca conseil constitutionnel doon lu waral lii di CRD di kuréel gi Abdoul Mbaye bokk doon sàkku ngir ñu indi yoonal ci bile conseil constitutionnel yéen a cabinet l'évidence ne yoon dal na ci ab élève jànge ca lycée Sange te fan yi ñu weesu élève googule jëloon muul maanaam birik dooroon ko monsieur Diawara di surveillant ca lycée bu Sange l'évidence ne googule élève dàq nañ ko ci njàng mi dootul seenati tableau bay bind